bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin ashaabihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alim al hakim assalaamu taala wa abi darrin alxifaari radiallahu anhu xadiisu e, qudsi mbokk yi waxi borom bi subhaanahu wa taala la comme ni alquran nekkee waxi borom bi subhaanahu wa taala waaye nag yegul ci darajaay alquran ndax alquran am nga dura booy julli nga jàng ko mën ñu sant ñu di ko jàng si suñuy julli waaye xadiisu qudsi moom malgré que wax yàlla la waaye amoo dura jàng ci ak julli alquranu karim mojisa la maanaam miracle la waaye hadisu qudsi yi kenn du wax ni loolu miracle la eh, am nga droit jàng al jàng hadisu qudsi te doo jàpp waaye alquran moom eh, amoo droit jàng ko jër téere bi di ko jàng te amuloo njàpp waaye hadisu qudsi moom téere bañ ko bind mën nga koo jël di ko jàng saa nga ànd ak njàpp kon loolu lenn la ci li nga xam ne mooy taqali diggante hadisu qudsi ak alquranu karim waaye hadiisu qudsi bi ñu ngi ko jëlee ci Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu mu jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñuy nettali waxi borom bi subhaanahu wa taala lan la borom di wax nee na yaa ibaadi yéen sama jaam ñi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jacaltuhu baynakum muxarraman fala tazaalamu mu ne yéen sama jaam ñi de man de araamal naa tooñ sama bopp maanaam tere naa sama bopp tooñ man duma tooñ kenn moom si boppam la teer la commencé mu ne moom yàlla de du tooñ kenn du tooñ benn jaam wa jaaltuhu ma def tooñ baynakum seen diggante muharraman di lu ñu xaraamal fala tawaa tooñante mu ne tooñ de commencé ana sama bopp man dama ko tere sama bopp man tooñ di mën a bàyyee ko ci man dem ci kenn man mënumaa tooñ kenn maanaam dama ko tere sama bopp ndax yàlla am na droit tere boppam tooñ ndax xamul kenn ku ko faree ko ko ko faree koo xam mën na koo tere tooñ kon moom tere na waaye def na tooñ googu suñu diggante mu nekk looñ xaraamal dafa araam ci suñu diggante ñuy tooñante ñun jaami yàlla yi moo tax mu ne fala tazaalamu bu leen tooñante kenn amul droit tooñ morom ka ndax yonent bi jàngal nañ ci benn xadis nee na ittaqu daawatal mazlumi fa innaha laysa baynaha wa bayna allahi hijab na ngeen ragal ñaanu ku tooñ ndax ñaan gi amul baaraas bu koy tree dem ci borom bi subhanahu wa taala mu nangu ko mu teg ci ne yaa ibaadi inni xaramtu yaa ibaadi yi kullukum daallun illaa man hadaytuhu mu ne yéen sama jaam yi de yéen ñëpp da ngeen a da ngeen a réer illaa man hadaytuhu ndara ka gindi naa ko yéen ñëpp a kon képp koo xamante ni am ak njub rek xamal ne maa la ko jox maa la jox njub googa waaye yéen ñëpp da ngeen a réer ñi gindeeku daal samak mbaax samak coobare ci sama kàttan ci laa leen eh, gindee bañ am njub na man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ku yàlla jubal kooku mooy jub waaye ku yàlla na ma moom kenn mënu koo gindi moo tax mu ne yéen ñëpp da ngeen a réer ndara ki nga xam ne man gindi ndax qul inna hudallahi huwal huda njubug la jubal si njubam ko waaw kenn képp koo xamante yaa ngi tegee ci siraatu mustaqim sante ko borom bi subhanahu wa taala xam ne moom ci coobareem ci kàttanam ci mbaaxam ci rële jubalee moo tax mu ne fastahduni comme ku jub man maa la jubal kon sàkku leen ci man jub ma jox leen ko fastahduni ahdikum ndax borom bi subhanahu wa taala wax nañu walladina jahadu fii naa lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama al muhsinin gis nga ku góorgóorlu topp ngir topp yoonu jub farlu rek yàlla neen dama lay gindi waaw yàlla neen gindi la teg la ci yoon wi mu teg ca yaa ibaadi kullukum jaaihun illa man atxamtuhu yéen ñëpp de da ngeen a xiif ndara ki nga xam ne man maa ko leyal maa yéen ñëpp da a xiif eh? kon képp koo xam ne xam nga fi loo xiwloo wërsëg wooy xiwloo rek xamal ne borom bi subhanahu wa taala mën ko jox ci kàttanam ak ci mbaaxam waaye duut ci sa mën-mën duut ci sa farlu bopp rek ci nga ko xamee waaye borom bi moo ànd ca loola moo la kàttanal moo la wërsëgal wërsëg woowu nga xam ne ci nga nekk ci xiwlu kullukum jaa'ihun illa man at'amtuhu rek leyal naa ko waaw ma min dabbatin fil ardi illa a llahi rizquha la ñuy wax kon yàlla mo mooy wërsëgal ñëpp képp ku fi nekk rek lépp ku yukkat ci kaw suuf yàlla moom wërsëgam ci loxoom la nekk kon nee na képp yen ñëpp dangeen a xiif nda rek nga xam ne maa ko lan maa ko maa ko leyal fastathimu ni kon nag sàkku leen maa leelu ku bëgg e wërsëg wooy dundee na ko sàkku ci man ma ma jox la ko waaw fastathimu ni ut'imukum teg cee yaa ibaadi kullukum aarin illaa man kasawtu yéen ñëpp dee da ngeen a raf leen rek nga xam ne man maa ko odd kon képp koo xamante ni xam nga fi sutur eh, suturloo sut loo suturaal say xawra maanaam yëre yooyu sol ay koddaay xamal ne loolu ci nu borom bi ak mbaaxam ci la ci nga ko amee waaye duul ci sa sañ-sañ sa sa man mënu bopp ak sa kattanu bopp yàlla la soob mu sëgal la loola waaw nga gis fii wax na fi e, li nga xam ne mooy wërsëgu dund waaye ak wërsëgu koddaay ñaar yooyu loolu mbiru àdduna la bu paree ci loolu ñëw nag ci mbiru alaxira mbiru àdduna la xiif ut loo lekk wërsëgu yi ngay dundee loo dundee loolu ci mbiru àdduna la dund àdduna waaye rafle itam ngay xut ay yére yoo xam ne moom ngay suturaale sa awra ay yooyu taar taarloo waaw wax nañu xuzu zinatakum inda kulli masjidin bu ngeen di yem si eh, barab bi néegu yàlla sax da ngeen di leen sol yére yu taaru borom bi bëgg na loolu bëgg na jàmm bi itam yu taar taar yoo xam ne yu taaru la yu rafet yu baax waaye mu ne loolu lépp du ngeen ko xam ndare bu man maa leen ko jox ku ko ci xam rek na ko sant yàlla te xam ne moo la ko jox mu teg te yaa ibaadi innakum tuxti'uuna bil layli wan wa ana aghfiru dhunuba jami'a yéen di xamal ne da ngeen di mooy ci guddi gi ak ci bëccëg bi yëpp da ngeen di mooy yàlla da ngeen may mooy da ngeen def ay ñaawteef te man nag man maay jéggale bàkkaar yëpp waaw xanaa ba mu des ishraaku billahi bokkaale yàlla yàlla nee na yéen de da ngeen may mooy di def ay ñaawteef guddi gi bëccëg yëpp waaw def ñaawteef surtout ma bàkkaar yu ndaw yi def ko yomb na lool man ngaa dugg ci def bàkkaar surtout da doo ko yëg moo tax borom bi ne guddi bëccëg bi yëg nag mooy mooy waaye nag xam ne ne man borom bu man a jéggale laa maanaam axfiru ba jamiian jàkkaar yëpp dinaa ko jéggale waaw ba mu may ishraaku billaahi kon nag fastaxfiru ne sàkku leen maa jéggalu axfir la ko ma jéggal leen kon na ngeen di sàkku mujj moo tax ñu bëgg julli bi fu mu toll na jéggalu borom bi subhaanahu wa taala bari li muy jéggalu borom bi subhaanahu wa taala waaw jégalu borom bi mën ko ko def ci ay istixfaar talabul maxfira istixfaar wala nga defee ko ci yenn ñaan yi nga xamante ne ñaanu yu ñu tuddee mukaffiratu zunub lay doon kon yéen di wax man qaala subhanallahi wa bihamdihi e, mi'ata mara gufirat lahu xataayaahu nee nañ ko wax subhanallahi wa bihamdihi nga wax ko téeméer yoon jégal nañ say bàkkaar yooyu yu mel noonu bëri na bëri na ay siixa yu bëri yoo xamante ne e, dañ cee diggee jégalu bàkkaar kon julli na teet bàkkaar yu mag yi waaye bàkkaar yu ndaw yi nga xam ne léeg-léeg mu rëcc la dugg ca bu teetee bàkkaar yu mag yi borom bi subhanahu a taala dafay daal di jéggal bàkkaaram yu ndaw yooyu na ko in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum mais bu ngeen wattandee ko bàkkaar yu mag yi daal moom dinaa leen faral seen bàkkaar yu ndaw yi leen ko ndax ndax ndax bàkkaar yu mag yi moom lu mat a wattandiku la moom bàkkaar yëpp a mat a wattandiku waaye rawatina bàkkaar yu mag yi ndax yonent bi jàngal nañ ci benn xadis ne ittaqu sab'al mubiqaat dafa am juróom-ñaari bakaar yu xalkaani mu ne na ngeen wattandiku bàkkaar yooyu juróom-ñaari bàkkaar yu alagaati dañuy bëgg bañ euh, bañ euh, waxtaan wi gudd waaye konoon ñu indi juróom-ñaari bàkkaar yëpp waaye bàkkaar yu mag yi moom ku ne xam ne euh, yi nga xamante mooy bàkkaar yu mag wala yi ci gën a faree ñu bari xam nañ ko kon wattandikul bàkkaar yu mag yàlla jéggale sa bàkkaar yu ndaw waaw ne kon mu ngi noonu da ngeen di def bàkkaar guddeeg bëccëg te man ku mën a jéggale laa ma sàkku njéggal mu ne yaa ibaadi innakum lan tabluqu durri fa tadurruuni yéen du ngeen ma mën a lor mukk du ngeen mën a jot sama lor ba di ma lor waaye walam tabluqoo nafii fatan faxoon yi mënu leen maa lor mënu leen maa jëriñ waaw ak njëriñ moom mënta jógee ko ci jaam jëm ci borom bi subhanahu wa taala waaw moo tax kilifa gu baax waxoon na ko addurru wa nafxu min arrahmani laysa min albidaani wa sudaani waaw waaw defe naa sëñ Tuubaa moo waxoon loolu waaw nee ak njëriñ waaw nee na loolu yee mënta jógee ci ye mina min arrahmani ci yàlla lay jógee ko waaye jógee ci ku ñuul wala ku weex mënta jógee ci moom kon même jëriñ comme mënoo jëriñ sa moromu jaam kon yàlla <laughs> mënoo koo jëriñ moom mukk abadan mu ne yaa ibaadi law anna awalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum kaanu ala atqa qalbi rajulin waaxidin minkum mu ne fekkoon na yéen ñi njëkk ñi ma njëkk a bind ci yéen ba ci ñi ma mujj a bind yaa jinne ñaak nit ña ñi say nit ñi say jinde ñëpp buñ xàndoon e ragalee yàlla ni waa ji gën a ragal yàlla ci yéen kon mu ne ma saada zalika fi mulki shay'an mu ne loolu de du yokk ci sama nguur gi dara tegaate yaa ibaadi law anna awalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum kaanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dalika min mulki shay'a mu ne bi fekkoon ne ñi ma njëkk a bind ba ñi ma mujj a bind ñi say ak ñi say jinne dañoo daje maanaam e, ñëpp yore xolob ka gën a e, kàccoor ci nit ñi mu ne de loolu de tax mu wàññi dara ci sama nguur gi man yàlla kon loolu dafay confirmer li nga waxoon a waaw mënuñ koo lor mënuñu ko jëriñ mu ne yaa ibaadi law anna awalakum wa axirakum répéter même phrase bi law anna awalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum fekkoon ñoom ñoom ñëpp dañoo dajee la fii saidin waxidin ci benn pàkk benn place fa saalu nii fa ataytu kulla waxidin masalato ma naqasa dalika mimma indi illa kama yanqusul mixiyatu ida udxila al baxra mu ne bi fekkoonte ne yéen de ñi njëkk ci yéen ñu mujj ci yéen ñey nit ak ñey jinne ñëpp ñu dajee ci benn place kenn ku ci nekk laaj ma lam soxla lam bëgg ma jox ko lam bëgg ak lam soxla yëpp ba mu daj ba ñëpp daj mu ne ko noonu loolu du wàññi ci sama sama nguur gi maanaam du wàññi ci li ma am ma wàññi ci sama koppar foor yi waaw yàlla nee na wa min shay'in illaa indanaa xazaa'inu yàlla nee na lépp lu ngeen xalaat rek am naa ci ay magasin waaw am bëggay la ci man mu bu fekkoon ne yéen laaj ngeen ma daje ngeen benn place eh, ngir kenn ku ne laaj la nga soxla bu ngeen ko laajee ba ma jox leen kenn ku nekk la mu soxla ba pare mu ne ma yoroon man dara du ca wàññeeku xanaa bu fekkoon dana am dara am lu ca wàññeeku ngi toll nii puso boo jël dugal ko ci géej gi daal boo ko génnee xam na la cay tooy noonu mu ne xëy na loolu lay wàññi ci ci li ma am loolu la borom bi subhanahu wa taala wax illa kama yanxusul mixyatu ida udxila al bahr mu teg ca yaa ibadi innama hiya amalukum mu ne xam leen ne li ngeen di jëf yëpp seen i jëf la de uxsiha lakum summa wafiha iyaha fi wafikum iyaha dinaa ko takk seen jëf yi kenn ku ci li nga jëf dinaa ko takk dara du ci échappé danaa ko takk denc ko garde ko danaa leen ko fayaat ëllëg suma wafiikum iyaaha fa man wajada xayran ku fekk lu yiw fekk lu baax nga xam ne eh, ba nga jotee sa téere bu jëf sa téere bu jëf gis nga lu baax rek nga ca gis mu ne kon fal yaxmadillah na sant yàlla yàlla mi ko kàttan la ba mu mën a taxawee lool waaye wa man wajada xayra saari ku fekk lu wuteeg loola nag mu ne falaa yaluumanna illaa nafsa bu mu yedd kenn ku dul boppam waaw yoo gis ne waram bi subhaanahu wa taala mu ngi bàyyiloo xel eh, mu ngi bàyyoo xel si mbir yu am am importance eh, gis ne xadis bi boo ko bëggoon a tafsil dinga ci yàgg lool ndax lu ci nekk rek mën nga cee taxaw wax ci lu yaatoo yaatoo yaatu waaye ci tënk rek xadis bi moom dañu ñuy bàyyiloo xel daal mooy mbokk yi <coughs> mooy ne mooy ne tooñ daal dafa nekk loo xam ne lu dangereux la maanaam nit ki war na ko watandiku ndax nee na inna shirka la zulmun azim yàlla sax tuddee na bokkaari tooñ bokkaari sax tooñ la ko tuddee inna shirka la zulmun azim loolu alquran la kon dañuy jàngee ci aada ne tooñ daal ab jullit war na ko watandiku ci façon tooñ tooñ bu mën a doon waaye itam eh, rawatina tooñ goo xamante ni dafa jëm ci sa borom bi subhanahu wa taala mooy nga mooy ko mooy yàlla loolu tooñ la waaye boobu tooñoo yàlla sa bopp nga tooñ Eh, waaye dañ jànge ci hadis bi tam mooy jaam ñi nekk naka la nekk di jaam yi ñëpp dañoo xaajo jëm seen borom subhanahu wa taala waaye nag moom ku doylu la wala si jaamam yi dañ jàngal tam ne maanaam jaam bi toujours dafa war dellu ci borom bi subhanahu wa taala di jéggalu borom subhanahu wa taala ndax ne kullukum ay yonent bi jàngal ne kullukum xattaa'uun wa xayrul xataa'iina tawwaabuun yéen ñëpp da ngeen di mooy yàlla waaye ñi gën ci ñi mooy yàlla nag mooy ñi nga xam ne dañuy dellu ci borom bi di tuub waaw ah, waaye hadis bi jàngal mbokk yi dafa tey tam ne Eh, jaam ñi képp ku ci nekk rek lépp loo xam ne jëf nga ko dana ko takk te dana la ko fay dana la ko fay xalak waaw dañu jàngal tam ne nit ki fu mu toll dafa war di xisaab bakkanam dafa war di boppam di xool ay jëfam lan moo ci baax mu del di koy renforcer di gën ko yokk waaye li ci xam safaan mu fexe ko wattandiku ñu jégalu ko borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla may ñu dégg topp in uridu ila al islah mastata'tu ma illa billah wa sallallahu wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa alamin